wala xam-xamam léegi nag yonent bi al wala diineem yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ñeneenti yëpp bàyyi ko nga ji nga ti ñette yëpp bàyyi ko nga téye diine su amee diine rek jeex na bu mu ragal dara insha allahu lañ koy digal na téye séyam bi bu baax yaayam ak baayam lu mu yàgga-yàgga danañ delloo ci sëy bi dak de sëy su fekkee am moo tax nga def ko rek dafay jeex su fekkee taar la itam dafay jeex su fekkee ne itam euh, mbokka la loolu itam dafay neex dina naqari waaye islam bi moom benn la te yaayam ak baayam itam ñu ngi koy diggal digal ñu leen di digal ne ñu dellu ci islaam la leen yàlla digal ñu déglu ko te ñu toppa ko. la ko yaay bi bàyyi mu sëy loolu moo gën a am njëriñ parce que man dal na ma suma doom papa defoon na du ko ko du ko may yaayam du ko may jëkkër waaye man ba ba papa gaañoo ma jël ko may ko ko parce que su ma ko ko mayoon mun na ko ñëw biiral te du ma si mun dara jël ko yóbbu man daal li ma am advice pour ko bàyyi mu sëy waaye su ne nangul bante mu yónnee ay kilifa si moom ne ko su nekk nii man a a may ko ko soo ko nga nga noppale ko waaye soo ko ku mayut na dem yàq boppam fete te du si mun dara waaw man loolu daal laa ci xam ne daal na yaay bi d'accord may ko ko

Hmm. ah nasiya nasiya moom rek seen nañ ba pare jigéen bi bugga nag góor bi bugga leen seen nañ waaye taxul yaay bi mu ngee dem si seen nañ sa pour kay jaaduwul loolu kay yaay yaayam ya kay war a def loolu parce que kii doomam la yaa doomam moo faa si loolu kay di yoon wax dëgg yàlla gaa def ndànk rek parce que ay lañ ah, am kanam nañ defanda mu neexal kanam rek comme que papa wax na ne mu ne papaam moom nangu na si waaye moom yaayam nanguwul man daal man si suma xalaat daal na si génn parce que nit ku nekk ay waay juram nga am xam naa ne nag naxari na ko mu ne moom sëy bi neexut ko dina neex nag diggante boobu moom daf dee neex waaye duy am mujj man daal man lool loolu daal mooy suma xalaat comme que su fekkee mun naa génn si sëy bi daal na si génn mu am ak ay waajuram jaamu. tey bi tey bi ñu ñëwoon ci kër doon laajte kilifa gi kenn du dem naan ana yaay ji moom mooy kilifa moom la ñu laaj la ñu laajte. te gannaaw yàlla dogal na ba nga xamante ne xale bu jigéen bi suñ borom dimbale na ko ba way juram bu góor ànd na ceeg moom na góor rek lu des nag ci sëy bi loolu des na ci loxo suñ borom te yaakaar naa ne sëy nekkul ne lu ko takk mën na koy tas waaw sëy nekkul ne lu ko takk mooy dem rek tas ko waaw gannaaw maam baye ji moom ànd na ceeg moom na wakiilu rek wéeru ci yàlla rek waaw ñaan yàlla ñu ñaanal ko yàlla maam may ko suñ njaboot bu góor rek bu jigéen waaye nekkul ne sëy moom buñ ne takk nañ ko ba pare ñii ne baay ji ànd na ci yaay ji àndun ci kon dañuy tas sëy bi de man lu mu koy digal mooy na jàpp sëy bi na continuer si sëy bi rek ba suñ borom lu mu ko ci may rek moo xam ne loolu la waaye yaay ji moom nekkul ne moom mooy joxe doom wala baay ji moom mooy joxe doom nit léeg-léeg sëy dana am baay dana ci ànd yaay ànd ci jigéen bi ànd sëy bi ñu dugg ci bëgg mu bëgg doom doom të kon waxuma koo xamante nag na baay ji ànd na ci waaye yaay ji ànd àndul ci moom na sëy rek bu fekkee wàllu ay am doom ak doo di nga am doom doo am doom loolu moo ko ci jaaxal loolu di ci dara moom na sëy rek no xale bi jigéen bi ne muñ naxante ak way juróomi jigéen ak bu góor na def loola dégg mhm. wante xale bu góor na rek naka jàpp ak ñaari loxo ñoom ñaar ñuy continuer de muñ rek dégg mbokka yi lii la ñu waxtu mi yoon si seen programme yi jamono ji waaye naka di leen fàttali rek ne seen tawati xol yi ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu dee yónnee ci email jamono ji la at yahoo dot com jamono ji at yahoo dot com ñi nga xam ne ba tey rek téléphone moo leen gën a yomba dama ne call leen ma si 36 55532 36 55532 waaye ba tey nag am nañ line bu es muy Africell muy nombre bi mooy 20 12345 20 12345 di jaajëfal bu baax papali bu Africell mbokka yi ñu tàggu leen ba beneen bés bu ay ci waxtu bi jërë ngeen jëf promotion present Valentine Bonanza guddi gi ñu jagleel ñi bëggante Valentine Bonanza bu bokkul façon kon kaay leen seetaan Saturday 15 February 2014 guddib sañse guddib love jigéen bu ci dàq sañse wala góor bu ci dàq sañse wala couple bu ci dàq sañse ñu daal lay jox am neexal la a Live to JRTS TV ya Valentine Bonanza lii bu leen nangu kenn di featuring top Gambian artist G Manding Mori Rain Cracker. Abu and Fafa. Jeliba Kuyate and the Kumari Bond. And many more. Surprise guests from the Senegal. Saturday, 15 February 2014 at Paradise Suite Hotel, Penchemi Hall. Tickets, $300. Patrons, $600. Goodie Love, Goodie Mbegel, Gambia. Genesilen, New Dali Setan. It is a night filled with swag and class with a Red carpet entrance to showcase the best dressed ladies and couples